a jaar bi nuyu naa la. waaw fay naa leen sama doom yi. ah ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax. tey ñu gis na nga dugg si ànd ak délégation mën nañu xam délégation boobu ban délégation bi. de délégation bi de maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi. Mhm. di gërëm sama ñaari wéy bi délégation bi mooy délégation kër Alaaji Aly Ndiaye. sama baay ba ca àjjana. yal na xippee àjjanay firdawsi naqar rek la nu bàyyeel waaye bàyyi wunoo gàcce waaye nag defar na ginnaawam soog a dem ndax mag jiitu na rakk topp ma di ko ñaanal fii mu tëdd ci suufu Tiwaawoon te njabootam gi nekk fii ci Tiwaawoon te lépp lu Aziz Ndiaye def ak magam ak i rakkam siggal Alaaji Ali Ndiaye seen baay ak alima jigéen maamam rek moo tax mu du ko def kon yal na ko suñ aw fan te dese barke ba looloo moo indi délégation boobu. Euh, nga doon dund ak gàmm gi ki nga xamante ne mooy euh, suñu papa tey nekk fi mu nekk première édition bi nga xamante ni fekkewu ko alors ban vide nga nemmeeku ci kër gi. Ah, xanaa nag am na nañu vide amuñu vide ndax boo nee jàkk Masata ni jàkk Aziz xam ni góor gi jóge na fi waaye lim fi ba woon jógu fi. li doon métti doon vidde mooy mu jóge fi ba pare ginnaawam naax saay waaye tey ku dugg ci kër gi di nga xam ne Alaaji Aali Njaay li mu fi jëmbatoon bàyyi ko fi mu ngi fi jógu fi lu mu fi bàyyi woon ren benn Aziz def na ko fukk lu fi bàyyi woon benn rek Aziz def na ko fukk ànd ak magam na Masata Aali Njaay ànd ak rakkam ju baax bàyyi nga xam ne daf am kilifa mooy li am solo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 Dior Fall sama bàjjan moom biraan ñoo bokk ndey ak baay boo déggee bi may woy Aziz maa ngi ko naan sa baay nga jël sa jikkoy bàyyi nga jël ndax aale sa baay ku mu bokkal dimbali na la looloo waral mu jël Dior sama bàjjan dugal ko ca kër gi moo ko tee jooy biraan dem nga sa dëkku maam bi bas tabax nga fa jàkka def nga fa hôpital bënn nga fa teen xutti nga tël yi Abdou Aziz Aale Ndiaye lu ma lay wax ñu ne xam. foofu nag laay duggaatee ak yow ak famille woo woy du fay woo woy hymne national la relation bi ca kilifa yi la ndax sama bàjjen joor moom la alaaji ale Ndiaye jël def ko jigéen def ko rakk taawloo Cheikh Mbacke ak Ablaye Mbaye jël seex Mbacke alaaji ale Ndiaye jël Cheikh Mbacke dugal ko biir këram jël alalam jëpp teg ko ci loxoy seex Mbacke mu yor camion yi di ko dawal booba Aziz màggagul Massa màggagul mu jël sama bàjjen sama bàjjen man sama papa 72 la gaañu amatul càmmeñ ndax sama papa benn bu góor la woon Alaaji Ala Njaay fomp ay rangooñam ni ko man maay sa mag ajatu xadiloo xujjo jóob gaajo njaay ak aram jaase ma gaañu sama bàjjen di seen njëkke gis nga Abdou Aziz mii noppi xale yi bi ñu koy tudd sama bàjjen a doon laax al amin di ko tudd si xanaa kon loolu yàgg na sama bàjjen bi bokk ak sama papa ndey ak baay bi nu tudd Abdou Aziz Ndiaye mii moo togg laax yi baay àll di ko niital. kon loolu tey maanaam seen non non non non hmm. mel déedéet. te dafa mel ni boobu gisaguñu ko dàbbali rek. dootu amaat loolu. loolu dootu amaat lu ma lay wax. muy woy wu rëy. lu ma lay wax lu ma la bëgg a wax Aly sa baay wax na ko kii lu ma koy wax. Hmm. mooy lii am tey. bàyyi ma ko ñaanal soog a dem loolu mooy sama relation ak ñoom man duma ma géwél ci kër gi doom laa man ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay cër boobu la nu ma téye cër boobu laa leen téye allah jaali Ndiaye sama baay bi daaw dama ni fii Abdou Aziz Ala Ndiaye ak dex la ak dex bu daggee ba wuti géej bu ko kenn téye këram la jëm Abdou Aziz njaay bu baaxee kenn du ko laaj bàyyam la nuru mu daal di may may xaas fii dem àjjana nag. ba fi njabootam gi lim fi ba woon jógu fi dara buusewul ci li fi El Hadj Alé Ndiaye defoon dara kon di ko ñaanal fii mu tëdd ci suufu Tiwaawan te nag siyaar ko yombul de nabi la dëkkal. yàlla na xippee àjjanay firdaws alors dañuy ñëw nag ci ci ci actualité bi nga xamante ni Maman Ndiaye du ñàkk ñu wax ci mhm. ndax gis nañu ki nga xamante ni moom mooy Aziz Ndiaye daal dinay jël deuxième femme yow dangaa nekk mag ci kër gi gis nañu polémique bi nga xamante ni quand même daal dina koy jur tey lan ngay wax ci soxna si nga xamante ni takk na ko te ñu bari foogee wuñ ko ko woon ah xam nga nag dafa am loo xam ni su amee dañ koy bàyyi ci loxo sunu boroom ndax yàlla moom bu tuddee kenn mënu ci dara am na ñaareel am na aawo bu baax yëfi yàlla ak yëfi sunu boroom moom sunu boroom rek lañ koy bàyyeel di ñaan yàlla rek yàlla guddal fanam may ko wér may ko njaboot gi barke Seydina Mohamed te mu àttan leen. lan xam ne fekk ko amuma dara lu ma koy dénk. Ah, ndax dafa baax. dafa baax uuf njabootu Aziz seen yaay dem àjjana mu uuf leen xale yi nu yaay jaaxle wunu mu baax lool di am yar am teggin mu koy ñaanal rekk yàlla fekkeloo ko lépp mu fekke njariñu njaboot gi bi jaay Seydina Mohamed ngay yaay ku nekk xam na ne jaar nga ci néegu sëy gone gi nga xam ne moo ciy soog a dugg ndax gis nañu dañuy wax que ne xale tout temps bu nekkee ñaare dafa am lu nga xam ne moom lay indaale buy ñëw lan nga koy wax tey ci sëy bi nga xam ne dugg na ci moom ay Aïcha Rasoul xanaa jàmm ak salaam rek yàlla may ko jàmm may nu jàmm rek mhm. loolu rek laa koy ñaanal yàlla may ko jàmm may nu jàmm wasalaam waajalee gàmmu gi actuellement nag gis nañu ne na suba la gën a tàng am Aziz bi dara dara du doy ñun yàgg nañ koo waajal commencé wul tey ba nu ralee gàmmu ba nga ne Aziz da koy waajal xar dina dee nag dina dee bëy dina dee ginaar dina dee koppin dina dee pitax dina dee jën jooy ndayam fi dara du fi manqué dañ koo yàgg a waajal ci waaj mi rek Aziz yàgg na ko waajal ànd kooki bokkam ak magam ak rakkam ànd kooki jigéenam ànd koo xaritam ànd koo ki Sénégal àddina sépp Aziz na waajalul gàmmu gi rek de nagam yi muy jiital da ko yóbbu kër Serigne Touba nagam yi muy jiital da ko yóbbu kër Baye Niass nagam yi mu jiital da ko yóbbu Ndiassane nagam yi mu jiital da ko yóbbu kër Baye Laay di ko yow fii ci Tiwaawoon Aziz Aziz àdduna la xam nga lu nu koy ñaanal gudd fa bàyyiwul kenn dafa dem ba ca jumaa ja def lu rëy ca Kaaba ga ca mag armal ba pare umra tawaaf ba pare taxaw ni maa ngi ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru mu yàgg fi ca wér ñaanal ko sëriñ Bay maasu ñaanal ko kull koy sëriñ moom loxoom bii dugalu ko fenn rek da koo jël dugal ko fépp moo tax it am na lépp yàlla na ko yàlla la fal cat may ko gudd fan may ko wér ñun loolu rek lañ ko ñaanal ak i rakkam man nag dama am sama xarit mm, baay anama sat baay ñaay